conseil constitutionnel daal dinay génne léegi liste candidat yi mën a bokk ci élection présidentielle bi ñu mal list boobu ñi ci seen tour nekk mooy Boubacar Camara Cheikh Tidiane Dieye Déthié Fall Daouda Ndiaye Habib Sy Khalifa Ababacar Sall Anta Babacar Ngom Amadou Ba Rose Wardini Idrissa Seck Aliou Mamadou Dia Serigne Mboup Pape Djibril Fall Mamadou Lamine Diallo Mohamed Boun Abdallah Dionne El Hadji Malick Gakou Aly Ngouille El Hadji Mamadou Diawo Bassirou Diomaye Diakhar fay ak Thierno Alassane Sall kon candidature bu Karim Wade conseil constitutionnel daf ka gàntal booba lépp kuréel daal di xamle ne bi lépp décision ña ko taf ca greffe bu conseil constitutionnel publié itam ci journal officiel bu république bu Sénégal ak fépp fu ko jaar délibéré bu conseil constitutionnel bi nag am ci ñaar fukki fan weeru janvier du baajo Camara moo ca bokk di président ba madame Aminata Ly Ndiaye di vice président Mamadou Diawara Youssoufa Diaw madame Awa Dieye Cheikh Ndiaye ak Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly ñi bokk ci boobaleb conseil maître Ousmane Ba moo nekkoon greffu ndaje ma candidature bu Karim Wade kon conseil constitutionnel daal di xamle ne mujjuta jàll bu weesoo candidature bu Karim Wade conseil constitutionnel gàntal na itam candidature bu Ousmane Sonko ak candidature ñeneen ñi dugaloon recours yépp ca conseil constitutionnel bëggoon ñu dabuwaat seen ay parrainage xoolaat seeni mbir kon lii mooy muy ñaar fukki candidat yi ñu lim léegi ñuy ñi ci war a bokk ñi ci des ñëpp kon dañuy muñ ba beneen élection présidentielle ci réewum Sénégal